waaw lalu abord loolu dawar na solo d' dama ci sama collègue yi mbokk promoteur yep di balu ak ci weeru koor bi ñu bu baax ñoom parce que maa mujj a xewle ngi di balu ak di rafet lu sen taxawaay ci man ak sen taxawaay ci yeneen jiital si suñu président Pape Abdou Fall gàcce ngalaama parce que dañuy faral di wax ne kae bu amee rek ka kon moom ayam moo neex mais ñun ñi ko topp itam ànd ci ak ñoom yaakaar naa ñun ñoo liggéey liggéey bi parce que affaire bi ñu koy defar fondement bi ci man mii la jógee Sénégal promoteur yëpp dajaloo nañ jubóowuñu mais man maa indi promoteur yi jubóo maa toog waxtaane ak ñoom defe ko ak ñoom wëlbatiku ñu def programme ñu luye benn hôtel ñu daje fa toog waxtaan xool suñ président fal Pa Abdou Fall bañ ko falee ba léegi nag vraiment euh, ci li ñu bëgg rek ci loolu la nekk ci luy doxal làmb luy doxal sport lu am solo loo xam yaakaar naa kenn du ko gis accam euh, lépp loo xam ne ni daf ñuy may jàmm dafay indi làmb njariñ mu ngi koy doxal ak beneen côté kon ñu ngi koy saluer bu baax di saluer suñu mbokk promoteurs yëpp nag bàyyiwuñu kenn